بسم الله بسم الله تعالى بسم مالك الأكوان بسم من يقول كن فيكون الحمد لله رحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من لا يقال لغيره سبحانك اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين السلام عليكم ورحمة الله بوكي دلين جام تفكي لجرائب أجرت كسيل سيلي بيغا خمنا موي دولة الخلافة العباسية ديمو جانجي تخوان فيغا خمنا نك أبو جعفر المنصور لأجرائنا أبو مسلم القراصاني ثاني ci rey gu ñaaw gannaaw ba nga xam ne euh, lalal na ko ay ndëgg sarax ba abo muslim ñëw gannaaw loolu bu leen fàtte ne abo muslim avant muy ñëw dafa waxoon aba nasrin moom fa bàyyi ne ko boo bu leetar ñëwee ci yow bu fekkee ne gis nga tàmp na bi nekk genn wàllu jaaru man maa ko bind maa ko tàmp ne bu fekkee nag sama jaaru bi lépp lañ tàmp ne ci leetar bi xamal na bind mu ko waaye Abu Jaafarin Mansour moo ko bind euh, loolu mu doon njort nag noonu la Abu Jaafar def bi mu rayee Abu Muslim ba pare daggate ko dafa rocci jaaro daggate loxo yi pàcc par pàcc mel ni yow mu yore sa matt di ko ci digg bi rocci jaaru bi nag bind leetar ci turu Abu Muslim lan la wax ci leetar bi dafa wax Aba Nasr ne ko maa ngi lay nuyu man la abo muslim maa ngi fii ci abo jàppar fii li ma doon njort nag amu fi fi nooy na sedd na guyu teraanga yu ne am naa ko fi léegi nag maa ngi lay sant alal ji nekk foofu ak lenn ci soldaar yi yi ma bàyyi woon foofu yi gën a baax ci matériel yi léegi mën nga ko jël nga fexe waaj aw yoon nga ñëw fekk si ma fii maa ngi ci aba jaafar man soor abo abo jaafar bi mu bindee loolu ba pare jël jaaru abo muslim bi tamponné ko ne ko tàpp daal di koy kaste pour ñu war kaa yóbbu fële ca aba nasrin waaye mbokk yi bi leetar bi yeggee ko aba nasrin xoolee dafa xam ne nag abo muslim rey nañ ko parce que waxoon na ko ne bu fekkee ne bind nañ ko ba noppi tamponné ci leet sama jaaru bi lépp du man bi ko xoolee rek la xam ne Abu Jaafar moo ko bind fii nag ñaari riwaaya moo fi am daa am ñu wax ne gannaaw loolu Aba Nasrin euh, euh, euh, dafa lànk ne du ñëw Abu Jaafar daal di yónni pour ñu dem jàppi ko jëli ko ñu ne armée bi dañoo dem jàpp ko daal koy indi yut ko Abu Muslim yut ko Abu Jaafar ñu daal di koy rey lan moo tax tuumaal ko lan moo tax buur bi oo ko ñëwul beneen bi lan moo tax mu kompoloo ak Abu Muslim al-Khurasani nga xam ne pexe moom ñu laloon konoon dañuy mujj attaqué nguur gi ba mën nañ koo foqarti ñu ne tuuma boobu moo tax ñu rey ko beneen riwaaya bi wax ne déedéet moom bi mu déggee loolu bi mu jotee leetaru Abu Jaafar bi rek dafa daal di daw nag génn foofu wutali Hamadaan jël la alal yooyu yëpp ak soldaar yi moom it mu waajal boppam nag pour wuti Hamadan te boo xoolee riwaaye boobu moo gën a jaadu ndax lan ndax benn euh, maanaam warul mën a nekk rek Abu Jaafar mu xam ne Abu Muslim rey nañ ko ñu bind ko leetar rek mu njëkki-jékki noonu ñëw maanaam loolu boo ko xoolee warul mën a nekk li gën a jaadu mooy beneen riwaaye wax mooy gannaaw loolu dafa jël ay bagaasam ma Hamadaan bi aboo uh, Jaafar yégee ne wutali na foofu dafa bind gouverneur ba fa nekk ne ko uh, Aba Nasrin mi ngi jëm si foofu bu ñëwee jàppal ma ko foofu nga tëj ko nee nañu leetar bi bi mu agsi rek fekk na Aba Nasrin ci biir këram bi mu ñëwee nag yëgagut lu xew mu togg añ bu baax ne ko kat léegi kaay ma gane la la nee nañ noonu la ko ba jàpp ko takk ko ci ceen daal di koy yóbbul Abu Jaafar al-Mansuur ñu rey ko beneen bi am na ñu wax ne déet moom kay dafa jóge foofu daal di daw moom moo dawal boppam ñëw ba ci Abu Jaafar al-Mansuur daal di tuub loolu mu nangu woon euh, signante ak euh, Abu Muslim al-Xurasaani daal di tuub bi mu tuubee Abu Jaafar daal koy jéggal léegi mbokk yi Abu Jaafar bi mu Muslim ba noppi gannaaw bi mu ko reyee ba pare nag dafa dajale kàngam yi surafaaw yi ñi nga xam ne ñoo séq dawla bi dafa ne naa dajale booba génneegul sekkere buy wane ne maanaam ñi xam ne rey na ko bëriwuñu ay Suleymaan ak maanaam ñi gën a jege daal ñoo ko xam mu dajale surafaaw yi ne leen dama leen di laaj seen xalaat ki abo muslim lan mooy seen xalaat ma rey ko walla fekk rey ba pare de ne seen xalaat daal laay laaj nee nañu gars yi ñemewuñoo sax wax ñemewuñoo wax ndax yaakaar ne bu ñu waxee dañ jël seen wax jooju yut ko abo muslim su ko defee nag mu ne ah kon yéen yéen doon wax abo jaxfar na ma rey su ko defee ne abo muslim kon day dal seen kaw man na leen a ñeneen ñu rey leen gannaaw loolu nag la leen abo jaxfar wax ne cim yéen a tappet abo muslim rey naa ko ba daggate ko nee nañu keroog ñoom ñëpp yuuxu may ak feet foofu kontaan ci loolu ñu def ci nga xam ne mooy abo muslim gannaaw loolu nag abo jaafar dafa oote nit ñi dëkk bi yépp ñëw mbooloo mépp génn mu def pëjom bu rëy wara def foofu nag xutba wane ne jàpp na jën wi gën a mag abo muslim mi doon féeteerlu ray na ko waxoon naa leen tamit ne ñetti problème yi nga xam ne moo dal ci kaw abo abo jaxfaril mansoor benn moo ko defee mooy digganteem ak muhammad di sëtu yonentu alayhi salaam di sëtu Ali ibn Abi Talib ak rakkam Ibrahim ña nekk ca Madina problème boobu dina ñëw ndax ñoom it génn nañu fippu nanguwu ñoo ànd ak Abu Jaafar al-Mansuur moom fi mu jaar ak ñoom jëf ju ñaawa ñaawa la léegi bi mu dajalee nit ñi wala def nag benn xutba pour leeral li tax mu rey Abu Muslim al-Xurasaani moo tax mu ne euh, Abu Jaafar dajale na nit ñi baada qatli abi baada qatli abi muslim fa qaala mu ngi xutba nag mu ne ayuha nnaas laa tunaffiru atraafa nicmati bi qillati shukri e yéen nit ñi bu leen euh, wëlbati mbir yi ni mu war a demee bu leen jël xéewal gi ñu leen defal ngeen mujj def ko mu nekk musiba ci seen kaw bu leen bokk ci ñi nga xam ne yàlla def leen di defal xéewal ba pare ñu def ko mu nekk musiba ci seen kaw alam tara illa alladina baddalu nicmatallahi kufran xoolal ñi nga xam ne xéewal gi leen yàlla sott ci seen kaw soppee nañ ko mu nekk musiba mi ngi xutba de ne bu loolu amee bu leen def loolu ndax bu loolu amee ngeen euh, nekk ñoo xamante ne bi du ngeen sant su boobaa nag fa taxilla bikum an niqmatu su boobaa nag musiba day jaadu day war mu daanu ci seen kaw wala tusiru bu leen di dox ay secret yoo xamante ni bi xicchal aimati da ngeen di fexe eh, bu leen di dox ay secret ci suuf yoo xam ne la ngeen lal ca suuf mooy or njiit yi fa inna ahadan xam leen ne kum mën a doon ci yéen laa yusirru du am secret bu muy nëbbu min kum ci yéen say an dara ila zahara fi fallataati yi kum mën a doon ci yéen secret yu ngeen mën a nëbbu ak yu mu mën a doon lu ngeen ko nëbbu nëbbu dina feeñ bu neen lal ay sekere ngir daaneel nguur benn dinaa ko xam ci seen kanam wala ni ngeen di xoolee wala ma dégg ko ci seen wax secret yu ngeen di nëbbu dina feeñ mu ne nag na xam ne wa inna ñun lan najhala duñu réeree xuquq xuquqakum seen aq maa araftum xaqana feeg yéen ngi ñuy jox sunu cër feeg yéen ngi ñuy jox xaq ju ñu moom duñu réeree seen aq mukk lépp lu buur war ak yéen dina ko def dañ leen aar dañ leen toppatoo dañ leen jox lu ngeen soxla ci ci kaw jox ñu te abo muslim gis ngeen fi mu mujjee wala nan saa ne ñun de duñu al ihsaana ilaykum ma zakartum fadalana duñu fàtte rafetal jëmee ci yéen waaye feeg nag yéen a ngi rafetal jëmee ci ñun mi ngi dajale mbooloo mi ñëpp a ngi ko wër muy def xutba bu mag ne leen ku fi lal pexe pour daaneel nguur looko ko nëbbu nëbbu dinaa ko xam te et puis àq yi ngeen am yi nga xam ne buur moo leen ko yoreel yëpp dañ leen ko jox waaye ci sarta yéen ngeen jox ñu sunu àq yi nga xam ne moom lañ am mu ne waman man nazaana hatha al qamis mbubu bii képp ku nga xëccoo ak ñun dañ teggi boppam ci doxam moonaam mooy nguur gi képp ku ko jéem a xëccoo ak ñun dañ teggi bopp bi dañ ko teggi ci doqam mu ne wa inna aba muslim ndax aba muslim mii kat baayaa annahu man nakasa bay'atana wa azhara qishana lana faqad aba faqad abaxana dammahu mu ne ndax abu muslim mi moom dafa jaayante woon ne képp koo xam ne dafa or buur ba noppi mu kàccoor mu jaayante ba noppi génn ci lam jaayante woon kooka deretam dagan na abu muslim loolu la gëmoon te loolu la jaayante woon léegi nag loolu mu jaayante woon yépp génn na ci wa nakasa rocci na loxoom ca lam jaayante woon wa xadara orna wa fajara ab kàccoor la mujj nekk wa kafara mu mujj weddi aboo jaxfar nag nee naa ko fii dañ cee waroon a teg foquti la xoolal baat yi muy jëfandikoo wa nakasa wa xadara wa fajara wa kafara dañ ci teg rek foquti la mu jeex tàkk aboo jaxfaril mansoor bu ñëwaatoon jamono xam naa moom fii dina ci teg foquti la mu ne abo muslim yi yep la def te epi nak li tax ñu ray ko yéen ñep buñ leen ko waxe yedd gi ngeen ñuy yedd da ngeen ko bayyi ndax mom dafa jaayante won ak bur man ak mom ño tok ñu bokku jaayante ne képp ko xamne dafa jema lal ay pexe pour daane nguur ko dereetam dagan na ci kanam bur bi te yeen ñep xam ngeen ne abo muslim dafa muju fetterlu dafa muju bew mujj ber yoonu boppam loolu moo tax ñu rey ko li tax ñu rey ko nag defuñu ko ngir lenn lu dul pour aar leen yéen ndax aboo muslim bu rëccoon kenn par kenn la leen di jàpp rey leen kenn par kenn te amul kenn ci yéen ku mën a rëcc ci loxo aboo muslim alxurasaani gaa yépp nag tàcc nag ne ko wax nga dëgg wax nga dëgg kii kay ku bon la danga ko yéex a rey danga ko yéex a rey mu ne ndax ci biir xutba bi mu ne aboo muslim teraanga bu ne nguur gi defal na ko ko jël na teraanga bu ne ci sunu tuur ñun lim jël ci nit ñi lim ñu jox moo ko gën a néew day dem ci nit ñi jël fi teraanga yu ne buur defal na ko lu ne waaye delloowuñu dara benn teraanga boo xam ne aboo muslim delloo na ko nguur te tey ñoo ko yëkkati ñoo yëkkati turam fii mu nekk ñoo ko fi teg waaye gàcca ak suufeel dong la mujj indil banu abbas jàpp abo muslim di ko xas benn par benn te lii sax waroon na caa waaru ndax amoon nañu ko jiitu biñ féeteerloo gisoon na ñoom fañ mujj kon fii abu muslim mujj moom moo fi indi boppam moo féeteerlu moo rey boppam ndax lépp lu tax ñu rey ko moom moo ko def gannaaw loolu nag nee nañu am na keneen koo xam ne dafa génn euh, ku ñuy wax euh, Sinbad dafa génn fële ci hamadaan moom it tamit ne day fayul abu muslim al qurasani euh, mbokk yi beneen xeex nar na euh, soqeekoo fii ndax gaa yu bari taxaw nañu nag ne dereetu abu muslim du niin du neel noonu ñu ne ah, abu jaxfar ji nga rey tey bokkul ak ña nga daan rey ñu bëree bëri génn daal di ñoom tamit fipp taxaw ne dañuy fayul dereeti abu muslim al qurasani moom lañu sàkku bu leen fàtte ne soldaar yi ñi ci ëpp abo muslim lañu àndal fële ci Xorasaan ñu bëree bëri daanaka mën nga wax ne ñëpp sax abo muslim lañu àndal mais abo jaafar bi mu defee loolu pare dafa jël gouverneur boo xam ne ci moom la bokk rek mu dem yóbbu ko Xorasaan pour mu fexe récupérer foofu fexe jël armée ba ger leen maanaam jëndaat leen defaraat foofu ba kenn xelam dootul nekk ci abo muslim ña fay féeteeru mu xupp leen ñeneen ñi nooy bopp mu jox leen alal jënd leen ba lépp tegaat ci yoon aboo Jaafar al Mansour dafa xam ni muy téewee gaa yi mais nag ànd ak loolu yëpp terewul Sinbaas daal di taxaw ànd ak mbooloo mu bari jàkkaarloog Abu Jaafar al Mansour nee nañu Abu Jaafar al Mansour daf ko yónnee fukki junni soldaar fukki junni soldaar la Abu Jaafar takk ci armée war a jàkkaarloo ji ak ki nga xam ne nii mooy Sinbaas xeex boobu ba mu amee rey nañu ci armée ago muslim bi lu toll ci juróom benn fukki junniy nit si diina alfan juróom benn fukki junniy nit abo jaafarin mansoor rey na ko keroog ci armée sinbaas boobu nga xam ne moo génnoon même moom sax dañ ko reyaale kon abo jaafarin mansoor fii la mujjee ak abo muslim al xurasaani paas boobu tourné nañ ko léegi nag ñetteelu problème bi nga xam ne moo desee Abu Jaafar ci la ñuy dugg mooy digganteem ak sëti yonentu alayhi salaatu wasalaam ya nga xam ne ñoo nekk Madina ndax Abu Jaafar euh, bi mu ñëwee nekk buur dafa xool ne ñan ñoo war a euh, xëpp ci suuf cere maanaam cere ji ñan ñoo ci war a xëpp suuf ñu ko ah ñi ci xëpp suuf daal du kenn ku dul euh, sa baay di abdullahi ak abo abo muslim alxurasaani ak muhammad di sëtub yonent ñii daal moom ku ci yëkkati loxoom ni mooy buur sa nguur dina daanu wala ma xam ne sa nguur du dëgër yéen yéenay bokk jiite ndax ñoom ñii ñëpp am doole abo jaafar nag biñ ko waxee loolu mu ne ah kon baax na duma yàkkamti dinaa leen rey kenn par kenn noonu la def jël abo muslim dóor ko ci kaw baayam ñu xeex ba baayam jaaree fa dee ci biir kaso ba bi aboo bi mu desee aboo muslim mu indi ko gis ngeen fi mu mujj moom léegi nag kan fan la jëm mooy sëtu yonent yi alayhi salaatu wasalaam ndax euh, dafa yónnee foofu bi mu yónnee euh, bi aboo jaafar di toog sax boobu fekkul muhammad nekk madina ña nga yeneen dëkk mais dafa laajte ne est-ce que ñoom jaayante nañu ñu ne ko déet ñoom jaayante wuñu de nangu wuñu ne yow yaay buur nanguwuñu ne yow yaay xalifa aboo Jaafar nag foofu la commencé di leen di yónnee fa di leen di neexal di oote bi mu demee ba xam ne nag ñii duñu jaayante ci la Abu Jaafar mujj jëfandikoo doole mbokk yi jotaay biñ jëm euh, dañuy ñëw foofu di Muhammad moo nga xam ne moom lañ doon dàkkantalee nafsu zakiya nga xam ne moom moom maanaam nee nañ ci xeetu jaamu yàlla ak ci baax gis ku mel noonu satub yonantu boobu alayhi salaatu wasalaam oor ak julli maanaam lépp lu jëm ci jaamu yàlla nit mësul gis ku mel noonu ku baaxee noonu ci jaamu yàlla nit mësul ku mës maanaam amutoon ci jamono ku baax lool bëgg diine euh, gan léegi nag fi ñu jëm mooy euh, newoon naa leen geeru leetar moo am ci diggante bi ndax ñoom dañoo bindante ay leetar yu tàng yu kenn mës a dégg leetar yi ci biir sax ay saagante gi yépp am na ci foofu la ñu commencé incha allah jotaay bi ñëwaat ba xam Abu Jaafar fañ fan la mujjee ak waa kër yonantu yooyu euh, bu ñu ñëwee fii dañ fi taxaw tuuti ndax euh, mu na biñ bëgg a def fii mooy dañuy faral di wax ne sëtu yonantu yi ban na umma ya ñoo leen rey ñun loolu lañ daan dégg yëpp waaye euh, sëtu yonent yi euh, euh, dañoo war a wax ne genn wàll gi bannu umayya ñoo leen rey geneen wàll gi dawlatul abbasiya bannu abbas ndax abu jaafaril mansour da ngeen gis fii mu jaar ak sëtu yonent yi alayhi salaatu wasalaam ak nii mu xasee seydina ali kàddu yu bon yu ne mu yëkkati ko teg ci ko teg ko teg ko ci kaw xuseynu ne ko ab tàppet la woon ab yambar la woon dafa yaafus ba bale Umayya ray ko maanaam kàddu yu bon yu ñaaw yu ne Abu Jaafar yëkkati ne ko teg ko ci kaw waa kër yonent alayhi salaatu wasalaam ci leetar yuñ daan bindant doyatul mu jàpp leen ray leen ray yu ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw loola mooy jotaay yiñ dëgmal incha allah il faut nag ñu tëb yu bëri ndax dawlatul abbasiya dafa gudd fiñ jëm dafa sori moo tax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 Tadi dina video vidéo buñ dugalati di ci jot jangin jauh. jëf